bokk si waxtaan Ama bale pour mu seetloo ma làmb ji bi ma ko seetee Ama bale dafa daan Modou Lô si si jëli bu rëy. ma seetaat ko gis Modou Lô daanaat Ama Baldé jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen ngeen ñu fan si daan Imbal Vision TV euh, tey ñu dalal Serigne Saliou bu nekk ko xam ñu xam ko ak moom xamante ni ci lañ jëm premier combat bi mu nekk nekk combat bu ñëpp di xaar combat boo xam te ne tension bi bëri na beneen combat bi ngi nekk diggante Siteu ak Lac de Guiers ku ko xam-xam ko ak Siteu moom muy ñaanal Siteu nekk wóolareem nekk koo xam ne ni ñu bëri bëri bu ñu xamee Serigne Saliou Siteu moo tax euh, kon dañ koy bàyyi mu nuyu continuer waxtaan bi Serigne Saliou ñu lay ziar waaw onze billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu suñu mbooloom jullit yëpp di ko di di jiital nuyoo bi suñuy kilifa si Muntaxa Mbàkke Basiiru si mborom yàgg ko fi lool di ko ñaanal xalifa général yëpp di leen ñaanal suñu borom yàggal nañ fi lool di ko ñaanal suñu xalifa si Abdou Latif Diène mi nga xam ne moo tax xalifa maam Cheikh Issa Diène si borom yàgg fi lool di ñaanal si Abdou nga xam ne mooy sama sëriñ si waaga si Abdourahmane Mbacke si borom yàgg fi lool si barke Seydou Khadim mi nga xam ne moom lay yàggal am na solo trop Serigne gis nañ ne combat bi léegi mu ñëw 3 jours moo ci des mu nekk diggante Modou Lo Ama Baldé ñu gis ne it aussi euh, combat bi nga xamante ne moo doxoon diggante Balla Gaye 2 Boy Niang bam desee nekk te xaar nga dem VAR demoo VAR ñu gis agsi na mu nekk Modou Lo Ama Baldé euh, combat boobu naka nga ko gisee. waaw général su fekkee ne wàllum làmb moom man moom lépp loo xam ne dama ko si wax. dama koy seet ba suñu borom wan ma ko ma sax di ko waxee parce que man dama nekk doomu aadama xam ne man du ma topp comme ni ñi di def du xool fa fa la nit ñi féete na nga féete foofu ma lépp loo xam ne dama koy def dama ko seet si sama kurus gii ba suñu borom wan ma ko ma gis ko jaxra ma soog di ko ma soog di waxee. balaa ñuy continuer da ngaa bëgg a wax ne lépp loo mën di def li nga daan wax ci làmb yëpp ci cadre seet nga ko teg. lépp loo xam ne tey dama koy wax si cadre làmb mi wàllum politique wala Ousmane Sonko bi yëpp lépp lu ma si mas a wax yëpp ba si combat Balla Gaye Boy bi ma waxoon ne Boy Niang moo daan Balla Gaye lépp si sama kurus gii nii laa ko seetee barke alxuraan karim man yàlla xam na ne du duma wax loo xam ne tey du wax loo xam ne tey seetu ma ko sama kurus gi te lépp loo xam ne tey bëgg naa koo xam si sama kurus gi laa koy seet man du ma seet ci béjjën du ma seet dara si sama kurus gii laay seet li may seet si mu borom wan ma ko si kàttanu yàlla mbaaxam incha allah. am ama solo trop ñu gis ne combat bi daanaka ñëw na. fi nuy commencé gis na ne Ama Baldé seen dernier face to face mook Modou demul bin lay laaj nga ne dafa am loo xamante nii moom lañ fay def moo tax bu demoon mën na am defet waaw loolu noonu Ama moom li li tax demul da nga ko defoon dëgg sarax moo tax demul. Mhm. te bu demoon day am défaite. Mhm. moo tax demul. Mhm. waaye général li ma lay wax li ma lay mën a wax si làmb ji mooy làmb ji jamono ji jamono ji nekk nii. Mm. lamb ji cinquante cinquante la. actuellement. cinquante cinquante la. Mm. lamb ji ku la wax na la di sant nii nii nii nii diw mooy daan da lay wax la neex mais la mais am na si koo xam ne tey. waaw am na koo xam ne damaa bokk si waxtaan Ama Baldé pour mu seetloo ma lamb ji bi ma ko seetee Ama Baldé dafa daan muloo si si jëli bu rëy. jël bu rëy si si jëli bu rëy. ma ma ne lii du ma ko wax si si média yi parce que vaar mën na am ma seetaat ko gis muloo daanat Ama Baldé moo tax lamb ji képp ku siy wax. na si def ndànk bu baax a baax a baax a baax parce que làmb yi nekk la làmb boo xam làmb miskil la li si li si ëmb si boobu moo bëri làmb yi mën nañoo dem ba si ba si biir géew bi général fi nit ñi préparé fi mbëri préparé làmb yi mën naa yàqoo foofu noonu mais ba nga njëkkee seet nga gis amaa Baldé daan Modou Lo yemoo foofu da ko seetaat aussi la ma tax yemoo foofu nga wax leen nga jox leen bi aussi waaw parce que mën naa yàkkamti jox résultat hmm. léegi ñu léegi làmb yu am Modou Lo daa war Ama Baldé te bu ko defee euh, dal lay dal lay génn say audio euh, say say kii yoo xam ne yaa ko waxoon. Mm-hmm. te man lépp loo xamante ne dama koy wax dama siy xool suñu suñu borom. ma loolu ma loolu laa xool parce que su fekkee ne tey da ngaa bokk si boo xam ne mi waa kër maam si ko seexal. Mm-hmm. am ay taalibe lépp loo xam ne tey da koy wax am am ñoo xam ne tey dañoo bokk si waa Ama Baldé nga nekk seen sëriñ am ñoo xam ne tey dañoo faral Modou Lo ngeen nga nekk seen sëriñ man wallaahi ñi may woo naa ma sëñ Sall damaa bëgg nga nga ñaanal ma waa Ama Baldé dama may woo supporter Ama Baldé dama may woo supporter Modou Lô dama dama may woo. moo tax man damaa mujj sax damaa toog tëdd njaaxaanaay képp ku ma képp ku ma woo dama naan la yàlla baax na lu suñu borom def ñu xam ne noonu la waaye làmb yi daal képp ku si wax ku ne bu mu teew jox victoire parce que làmb dafa nekk loo xam ne tey dafa doy wax doy waar goo xam ne képp ku si wax na nga def ndànk ndànk boobu na nga def ndànk bu baax a baax a baax a baax a baax parce que seet mën na laa ndax mën ngaa seet gis lii dem ba si biir dem si biir géew bi ñu ñu génne ay sarax lamb ji dëpp victoire bi dëpp. parce que dëpp victoire am na. am na solo dañuy continuer ak yow ba tey ñëwaat ci combat bi. parce que it boo waxee comme li nga wax dañ la koy d'accord bu baax a baax parce que it ba nu woolee ci combat bala Gaye 2 Boy Niang wax na ne bala Gaye 2 day daanu. boobu gis na résultat bi kon boo ñu waxee tey lii da nga koy d'accord parce que xam-xam xam rek lay doon dañuy continuer ak yow ba tey euh, dañuy gis ngay liggéey ci mbirum nopp parce que dinaa ñëwaat ak yow ci combat bi am na lu ñu ci war a leeral yu bëri yoo xam askan bi ñu koy xaar te it euh, saa su ne su may def émission yu bëri dañ may wax ni ma naa la laaj question yu bëri question yi dinaa ci ñëw benn par benn ci làmb ji mais mbirum nopp laa bëgg nga ñëw waaw su fekkee ne wàllum noot moom man man Serigne Saliou moom képp ku may liggéeyal si wàllu man nekkul da may war a na ma bi damaa bëgg a liggéeyalu noot ndax nga ndax nga fay ma xaalis man nootal la man du ma liggéeyal noonu parce que man lépp lu may def lu ne dama si xool suñu diggante suñu borom parce que guddi gi njëkk si bàmmeel ku ko doo xalaat loo neex defal alal ji bëri na lool mais alal ji lu mu bëri bëri bëri da ngay faatu bàyyi ko fi dëgg te faatu day ñëw te xamoo kañ la muy man a kan ak keneen si yàb kenn xamoo ban ban bis ngay ngay faatu moo tax ku may noot loo dama lay tegal ay sart dama laa nax nax li nga siy jublu nax ndax lu baax la nga dama waaw ma la ah ndax soxna nga bëgg wala la nekk si si si si sëy waaw ma soog di Mm-hmm. parce que man noot bi mooy noot moom képp koo xam ne tey jox nga ma turu yaayam ak turam ak sant yi ma xam ko. Mm-hmm. wallaahi amu ko mu mënut a jàpp si wàllu noot. loolu moom si borom def nañ si tawfeex bu baax a baax a baax. macha allah incha allah rabbi. am na solo trop bu jógee fa dañuy ñëw ci mbirum kaaraange danga waxoon nga ne combat Modou Lo Ama Baldé ku nekk na wut kaaraange si sinon lu ne mën naa la dal ci stade bi lu tax nga waxoon lool. waaw parce que bi may wax loolu ma ma ma lam bi ma gis naa euh, après combat bi dañuy xeex ba si biir combat bi ba si biir stade bi ba ba si biir stade bi gis naa fa jàppantu jàppantu métti métti métti métti. Mhm. moo tax li ni ko laaj moom maa ngi koy ñaan su fekkee ne mën naa génne laalo guy mu mu wës ko si stade bi. ak ndoxu géej ak ndoxu teen mu boole ko wis ko si wis ko si si bu ko defee si borom mën na si def tawfeex bu baax a baax a baax ba cooloo yi si borom bi na ko fa nga incha solo trop dañuy continuer ak yow ba tey ci la ñuy waxtaan parce que danoo nekk ci jamonoy làmb mais danoo bëgg ñu continuer tuuti ci xam-xam ñu gis ne da ngay joxe ay garabu ngóor hmm. garabu ngóor ay ndomba yoo xam ne dañuy gis ci mbëri la koy faral di gis kuy xool Modou Lo parfois buy ngemu bëri bu nuy ngemu lañ koy faral def seen kii yi da nga yor ci lan lay dox waaw ndoom yi mooy yi mu siyoo bëri na parce que ndoom ak kaaraange yi wax moom ana ko ñi nekk ñi nga xam ne doo nekk bitim réew ñu nekk Sénégal yëpp xam nañ ko si man muy nekk nii képp koo xam ne tey suñu borom dogal na nga nga war ko am ba takk ko incha allah rabi moom kenn du la kort ba jàpp la kenn du la liggéey si kaw suuf ba jëm ba jàpp la te kenn du la cetatuñu ba jàpp la te boo ko takkee say noonu yi nga xam ne tey doo nekk si yow doo nekkoon ak yow la xeex wala ñu ànd yow di la fakkasal suñu borom moom day def moom boo ko takkee da lay bàyyi incha allah rabbi am naa tamit beneen ndoom boo xamante ne moo nekk nii muy ndoom gi nga xam ne day dox si wàllu police képp bu ko takk yor oto police du la arrêté si kàttanu yàlla su fekkee da nga koo takk tamit nekk bitim du jaay amoo kayit noonu bañ bañ takk der di la sonal foofu boo ko takkee allah rek ndambu tur gi tam moo nekkee dama weñ gi moom xotti bi tal kase kase loolu la aar parce que doomu aadama bu si nekk booy wax waxal dëgg. Mm-hmm. képp ku ma koy jox damaa la man xotti bi tal moom mënu ma si dara waaye loo xam ne tey weñ la tamit lore si kàttanu yàlla moom du la dugg incha allah rabi. macha allah ngir soob na si borom incha allah rabi. Euh, am na solo trop ñuy continuer ba tey Serigne Saliou yan façon càngat ngay joxe. waaw su fekkee ne doomu aadama bi da koo liggéey mu leer na liggéey nañ ko li ma jox. boo ko sanguwee ñett guddi bépp liggéey bu nekkoon si yow incha allah rabi moom si mborom bi na ko tegg si kàttanu yàlla mbaaxam incha allah rabi loolu moom si mborom defal nañ si tawfeex bu baax a baax a baax bépp liggéey bu nekk si yow muy wàllum liggéey bu dul rab moom rab du ma ko faj mm-hmm. rab du ma ko faj rab fekk nag maa woo am na ñoo xam ne man ginnaaw la boole ak ñoom ñoo ñooy faj rab mm-hmm. waaye man man sin sall man du faj rab mais mais incha allah ñetti fan laa jox garab boo ko sangawee si mbooloo dina tàqale ko moom incha allah si kàttanu yàlla. Euh, macha allah am na solo trop kooku moo nekkoon Serigne Saliou ñu dalaloon ko fii ci Yeumbeul Vision TV dañuy waxtaan ak moom ba tey ci mbirum na ñu bëree bëree bëri na nga ci jëflanteeg askan bi. waaw su fekkee ne wàllum ngóora dalaa jàpp wala émorite parce que man ñaari jàngoro lay faj man man ñaari jàngoro kese laay faj muy ngóora ak émorite képp koo xam ne tey kële dalaa jàpp bu dul rab wallaahi wal xuraan karim sama garab bi su ma la ko joxee mooy traitement bi bu la fajul ba nga wér waat ma téléphone ma Sëñ Saliou delloo ma sa xaalis ma delloo la sa xaalis parce que man ñaari jàngoro kese laay faj mii ngóor ak Amérique te ñëpp loolu la ma xamee man ku ma woo si beneen jàngoro du ma ko faj ndoxum ndoxum si du ma ko faj Amérique laay faj ak ngóor bu fekkee ne wàllu garab Amérique tamit Amérique bu génn ak bu dugg saa yemal dama koy faj ba mu wér péng traitement bi juróomi semaine la mooy traitement bi nga taxalu ko moom si kàttanu yàlla incha allah rabi su fekkee ne fekkee ne wàllu Amérique kese moo la moo la jàpp wala ngóor rek man si incha allah moom képp ku si déggante man ginnaaw la fekk da nga si kàttanu yàlla incha allah am na solo trop dañuy continuer ba tey yan façon jaaro ngay joxe. waaw su fekkee ne jaaro yi tamit moo nekk nii parce que man jaaro bi moom laa takk nii képp koo xamante ne da ngaa bëgg si bëgg danga ngaa bëgg si jaaro bi suñu borom dogal ne war nga ko mën a am parce que lépp day day sob suñu borom rek man man damay wax ne ah su ma jógee damay ñaan képp koo xam ne aajo warul faju yàlla bu ma woo ba ma déggante ak moom te loolu am na yaakaar bu baax a baax suñu borom euh, mu ñu ko defal képp koo xam ne woo nga jot suñu saalu jàppal ne sa aajo war naa faju mais képp képp koo xam ne woo nga woo nga ma jotoo ma jàppal ne suñu saalu waru laa liggéeyal moo tax képp koo xam ne da jaar woo nga ma si dama dama dama la laaj sa tur sa tur waaye bu jigéen ma se ma seet ko ba pare xoolal la ban couleur ngay sol su ma la ko defaree jaaro bi day dox si loxo bu bënn jaaro bi day dox si kaaraange jaaro bi day dox si wàllu accident jaaro bi day dox si wàllu kort ak képp ku ko tax si borom gën a sutura bu baax a baax a baax si kattanu yàlla mu baax incha allah rabi ngi soob suñu borom. am na solo trop dañuy continuer ak yow ba tey parce que ku wax bayre ku wax bayre nga wax kaaraange ndax da ngay joxe bayre bu ànd ak kaaraange. waaw bu fekkee ne wàllum bayre moom dama la jox kaaraange parce que doomu aadama mënu ko jox bayre pare te joxoo ko kaaraange parce que nit ki moom boo ko joxee bayre joxoo ko kaaraange moom lépp lu ko dal yaa ko yaa ko lor moo tax man képp koo xamante ne dama laa jox bayre dama la jox kaaraange goo xamante ne ku la liggéey faatu te kenn du la mën liggéey si kaw suuf incha allah rabbi te ko joxee muy koy jaay muy ki nga xam ne daa yor ki nga xam ne dafa dafa bëgg a lépp képp ku ko jox dama la joxaale boo xam ne tey képp ku la liggéey day faatu te kenn du jox la loo xam tey da nga koy takk mu mu lay aar ba aar si njaboot incha allah si kàttanu yàlla mu baaxam. macha allah fi ñu koy tëjee mooy mbirum nopp. waaw moom chaque jour li ma li ma siy wax rek noot moom képp koo xamante ne dégg déggante nga ak man si kàttanu yàlla mbaaxam nekku da nga may woon uh, yor sa xaalis pour ma liggéey la man lépp lu may lu may def si wàllum noot moom sama diggante suñu borom laa si xool moom. ndax ma noot gi may dafa wér-wér goo xam ne parce que am na ñoo xam ne tey mën nga leen liggéey ñu noot ku jigéen ki wala ñu noot ku góor ki di di si def loo xam ne neexul yàlla te boobaa moom bàkkaar bi man am naa si responsable te man bëgg mu mukk ëllëg ma xëy am suñu borom teg jaam yi ñuy xool sama ndab dara di si gis loo xam ne tey loo loolu taq la moo tax lépp loo xam ne dama koy liggéey man suñu diggante suñu borom laa si laa si xool parce que parce que guddi gi njëkk si bàmmeel ku dul xalaat loolu loolu neex defal moo tax man man si saalo képp koo xam ne tey sa aajo suñu borom ndar na ba faju boo déggante man incha allah rabbi ngir soom na suñu borom gën a faju si kàttanu yàlla nga xam incha allah rabbi am na solo trop fi ñu koy tëjee mooy combat Siteu Lac de Guiers naka nga gisee combat boobu. waaw bi la combat moom ñu ngi ñaaw ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo yor ndam man Serigne Saliou man ndam damay wàkkeeru si suñu borom mi nga xam ne moo yor ndam te borom may ko Siteu si barke sama maam maam si Issa Dieng te si yaakaar bu baax a baax a baax a baax incha allah rabi loolu am nañ si yaakaar bu baax. looy tàggatoo yàlla waaw li ñuy tàggatoo moom mooy mooy doomu aadama yi kon li kon ni ma koy waxee rek nit ku si nekk yaa ngi dox di am bàkkaar maa ngi joxe na naafila boo xam ne tey bisu samedi la nga koy def boo jullee timis ba pare juróom benn ràkk la ñett sëlma la da dangay euh, jàng faatee bu sell sootul Ixlaas juróom-ñaari yoon mu nekk ñaari ràkk nga sëlmal ba mat ñett sëlmal nga def astafurlaa téeméer ñaan suñu borom bu jéggalee sa bàkkaar bépp bàkkaar boo mën a def si àdduna suñu borom bi na la ko jéggal su fekkee ne tamit da ngaa war waajur boo xam ne daa génn àdduna mën nga koo defal su fekkee ne tamit te mën nga koo defal parce que doomu aadama yi moom a képp képp ñëpp si yam ku nekk am nga bàkkaar boo xam ne boo yëgul boo yëgul boo boo yëg ak boo yëgul te incha allah rabbi moom képp koo xam ne xamoo fan ngay faatoo ak faatu ñëwee war ngay saablo bu a baax a baax si kàttanu yàlla bu baax ñu ngi ngi ñaanal suñu borom def Sénégal jàmm di ko ñaanal suñu kilifa diine yëpp di ñaan Sénégal suñu borom def si jàmm si barke seelu xam di ñaanal si Muntaxa mi nga xam ne moo siy kilifa si borom yàgg ko fi lool di ko ñaanal xalifa général yëpp si barke Seydou Khadim mi xam ne moom la yaakaar